Ah, le fils Ah boy, comment tu vas T'en es où Y'a de gain, Gaël Bob. Ouah Dev Comment tu vas mon frère soo nekk géej kii lépp gul Fada gisoo sa lex yi <laughs> naka moom ceenel boy nice tey taxawaar rek ngay def booy yàgg naa la fi toog di xaar booy Dakar embouteillage yi foo tourner embouteillage booy luñ si mën <laughs> ah booy yow mais la mën a la booy si la nekk raw booy. ton arrivée a coïncidé avec un de mes voyages d'affaires booy un voyage très important je pouvais pas l'annuler. voyage bi urgent booy. ma dégg ne yaa ngi si. est-ce que la. man caaxaan yëkkatiwu ma. Euh. caaxaan yëkkatiwu maa ngi woon ci liggéey booy. Hmm. maa ngi woon ci liggéey. j'espère que tu t'es pas ennuyé pendant mon absence. c'est clair yow moom doo wét yow. te jigéen am Baby, je t'aime et je sais que tu sais que je sais aussi que je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Baby àdduna bu ñëpp doon dem mu des yow kese mooy toog fi ñu nekk nii du hasard parce que instant bi man dama réer maa ngi mel ni puso bu lab ci diggu géej te ju bu géeju lenn la dul bànneex même quand je ferme les yeux je vois ton image J'entends tes Je sens tes caresses. bu dul yow du keneen. Bibi tu es belle. Tu es mimi. Tu es tu es Tu le bonheur du monde, amul ku la dàq ci àdduna bi man li may gën a gaañ mooy su ma lay gis ak beneen gaañ ndax ah, je te sens partout sa démarche sa style sa sourire say bise yi nga xam ne dina mën sàpp baby même asamaan suñu mbëggeel moo ko suuf ndax dama la bëgg ba noppi bëgg ni ma la bëggee bul bul ma mere man damay négociation maa ngi man bu ma soñoon loolu nga bëgg dama la koy defal yooyu ngay def ay dem resto yooyu yëpp yëfu xale la lu nga génn sa réseau ba mun nga xaar toog jënd ko toog ko sa kër ke ma ñëw ñu def yëf mag déedéet eh wuy ma damaa yor ab daal bu ndakaaru asu fu nekk lay dugg te foofu noonu muy dugg mun na bokk ay dugg-duggam bu fa duggee fekk ma fa nag lu nekk mën naa kaa dégg sama der yàqu mais ma loolu maa la ko ñaan loo moom loo ko war a jox waaw waaye yow it barki dem moo njaay jox mën a juróom fukki junni eh, ah man man li xam ne kat eh man retraité naa liggéeyatuma deux cent cinquante mille noonu lañ ko tegee sama loxo bëgguma lu bëgg mooy ban ma ko laajee ma nga jëlaat noonu teg ko sa loxo na bëgguma dara loola ah ah am na am na yoo xam ne nag da ngay seet bëgg naa kay waaye nag dee ma teg loo xam ne moom moom laa man amour kay da koy partagé hmm? waaw kon baax na jërëjëf déedéet déedéet déedéet noonu noonu waaw waaw baax na baax na man dinaa baax na baax na baax na eh, bul mer waaye <laughs> bul mer bul mer ah danga gaaw mer lool. baax na ngoon di ngoon bu ma julli tiis ba pare laata ñuy waxtaan waajal gée gi dinaa fa ñëw waaw waaw waaw dinaa fa ñëw <laughs> dinaa ma maa nga ma waaw waaw waaw am waa jërëjëf nekk ah. koo xam ne bëgg na xaalis te lu mu la wax bu bu lijjantu mu mere non moom damay mujjee doon agresseur du ñu saati dina ko xaas ñu booy xam nga lu ma remarqué je savais pas que booy aéroport bu mel ni la Sénégal am aéroport bi dafa nice booy. yow aéroport bi kese nga wax. dañuy dem. non sérieux booy dafa man xamoon ni aéroport bi ni la nice. booy Sénégal dañuy dem booy Moussa. dañuy dem sincèrement j'ai été séduit xaw naa atterri sincèrement. sincèrement. nous avons un de haut standing. le Sénégal yow gisoo yoon yi bi ngay ñëw. mais si autoroute à péage bi vite fait nga yegg Dakar. waaw booy ñun Sénégal dañuy dem. waaw sincèrement. si te dis une chose d'ici quelques années le Sénégal sera l'une des destinations les plus prisées d'Afrique. je te donne un conseil dellu si sa réew nga liggéey. ñëwal ñu investir fii ñu liggéey Sénégal day développé day dem te foog ñu bokk ci. ki nga dencoon yëpp indi ko nga investir ko fii ñu liggéey dëkk bi booy. Euh, les jours. pense hein je réfléchis loolu lu ma am Sénégal ma mais booy coow li dafa tar ci Sénégal boo nekkee fële gars yi dañuy kaas xam nga Sénégal nii xam nga coow li dañ lay tiital yow xam nga naa la nga bàyyi wax ji wax ji fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi wax ji du yàq dara gis nga fii Sénégal mm. wax ji ça n'empêche à rien fii jàmm rek a fi am incha allah ñëwal ñu liggéey booy amin booy amin parce que booy lu am solo la booy parce que Sénégal fi mu toll pratiquement fi mu toll ça serait extraordinaire avec tous ces travaux là qu'on est en train de faire booy yooyu yëpp bu ñu ko ci boolee xam nga jeunes yu mel ni aussi jóge kaaw ba ñëw xam nga chaque jour moo xam voilà yaakaar naa dana nekk quelque chose nga say défaut naa ko gérer na nit soo koy bëgg da nga koy bëgg ak ay qualité ak ay défaut man je t'aime tel que tu te gis nga man si ma bëggee ci yow c'est total sache-le je t'aime énormément je t'aime plus que tu ne m'aimes lenn rek laay mooy qu'un jour que tu me sois infidèle jamais et naa sax da nga am jël mais amul tooñ de yow man su ma nobaatoon keneen yow yaa koy njëkk yow su ma amoon fii paaka léegi wala jaasi wala pistolet dama lay wax nga rey ma après nga jël sama xol nga xool je t'aime trop baby kon ñu sëy sëy you are my yow xoolal benn affaire moo am takk ma ci farata yàlla ak sunu su Muhammad ma sëyal la sëy bu barkeel la sëy boo xamante ne àdduna bi yëpp koy coow ñëpp di ñu doon référence yu ñëpp ñëpp di roy ci ñun ma jural la ay doom yu rafet ñu leen di ngénte di toroxal seytaane àdduna di jëm kanam wala mais nag mhm. booy fii waxal ak man mhm. lu xew ci town bi ani bagage yi <laughs> nga yor réserve nga may ma ci wala nga jox ma ci dénk ma dénk ma balaa ma dellu yow xamoon naa ne di nga fël foofu yow doo changé yaa ngi bëgg affaire bi ba léegi saa boo ñëwee vacances la joxe xale yi <laughs> yow ne dina yaa ngi fi gën a jox ma ci gën a booy lendemain bi ma egg si. lendemain lan nga def. lan ma déglu rek lendemain bi ma egg si. moo doon doxantu ci town bi. booy ma mbëkkanteeg benn bagage boo xamante ne xale bi moo ma moo ma moo ma def signe. mu am fit booy. xam nga ma ne ma taxaw je l'ai affronté je suis un sénégalais yëfu góor yëfu góor je booy xale bi affronté ma booy ñu commencé waxtaan mais booy. xale la ay jàpp koñ affaire yooyu mais booy xale bi fi mu ma yóbbu nga wax mooy mais booy je te depuis lors lu mu wax ma lu mu def benn dafay dix chaque jour mu woo téléphone gauche droite gauche droite xam nga. li nga <laughs> ñamal a neex. <laughs> mais xam nga kolante quoi après du la may jàmm yow moom yow moom genre yooyu doo mën def ak ñoom. ndaxte yow da ngay naaw. damay yow doo yem fii benn fii benn fii benn yow plat yëpp nga bëgg ñam. amee ah, léegi quand même euh, mag laa quoi. yow lan nga wàññi na wàññi naa dose bi ndànk naa. non sérieux naa dose bi. su ma dis-moi autre chose booy. yow mënoo wàññi su ma la ko waxee rek gëm ma. Ah, teggi naa tànk tuuti na teggi naa tànk. de toute façon on verra on est là pour le séjour. <laughs> Ah, ñu commandé balaa ñu koy yàgg garçon. tabarakallah eh ta waaw. Ndiaye dama accompagne. pour lan. mais ku naan ay doom di nekk fi di yuux lan tabarakallah lan la la moo xew. Ndiaye la ma réeroon gis naa ko la ma doon seet teg naa ko bët. la yow loo gis. Ndiaye wala ba dem na kën waxuma dem dañ taale. Ndiaye gis naa ko may bëgganteel te yow dama koy may. incha allah si ngoom bul ma fontaw sa ku ñaaw kooku xel xalaatul ma génn si sa gel bu ñaaw boobu yow su soo ko attaqué yow kii ma lay wax urul ay ni la hmm. kon si ngoom su ma la déggee. Hmm. génn nga taxawaalu def sa kastin ñëw pour ñu tax ko nga tax ko. non je ferai pas loolu si ngoom. Hmm. si ngoom fii mooy kër Baay God Mbaay. après fii nii nekkul dugg suñu kër yombul de. Ah. lu leer mën fii dugal. Hmm. faaw ñu def kastin bi nga ñu xool ba xam kii lu muy lekk bariwul baa biiram du daw ba xam seet na. ñu xool ko ba xam du daanu rab. dañuy xool wërsëgam ba xam sa sa ak wërsëgam dëppoo na. bu loolu weesoo yooyu yëpp ñu doog xool ba xam naka la ñuy def ba may la ok léegi yow bu loolu noonu yëpp nekkul ci moom te man moom laa bëgg. doo ko tax yow kañ nga doon voyant. Hmm. da boobaa doo ko tax. du dëgg dama lay wax ni xale bu fekkee bëgg nga ko. bëgg naa ko waaw nga indi ko ma teg ko ba xool ban saa. foo jëm foo jëm. ah foo ma dem pour ma pour nga may ma xale bi foog ma génn. indi xale bi nga teg ko ba doog ma koo may. si nga xanaa xale bi procédure la. waaw xanaa gisoo waxtu bu jot. nga ne da nga koy indi heure bi. Ndiaye Ndiaye je surtout pas ngay traiter sama jabar de n'importe quoi parce que je l'aime ok singom ngay wenganu ni naan sa lem ak suukar xam nga lan la xale bi yow faa nga ñuus si biti si biir yow nga da noppal yaram bi bu suba jàmm fajar waxuma la fajar di nga bàyyi ba naaj bi tàng ba jant mi da nga indi ko ma daal koy xool def sama vision doo ko valider waaw xam nga lan laa nga xam ko nii laay def jaar bi yow ñu ci bu njëkk la ni génnoo kër gi sa beneen wax yow bu mu génne si làmmiñ di toog sama nopp ba de nga la ma wax waa da foog

fan yii nu ngay nekkee si kër gi neexuma dara te kër gi xamuñu lool dañ di géwal te géwal xamul lu dul jubale ak boole seytaane nag bu leen ko xajal suñu biir ndax fu mu xaju rek lay dugg bañ ak làmmiñ ñoo dëkk mais yenn saa ñu réeroo te ñu bokk teenkat mënunoo bañ a laxasoo ay goj lu ngeen mënta jàpp yéen ñaar kenn ku nekk dama bëgg nga wàcc ko mu daan suuf mu jeex tàkk jàmm na ñooy bisimilah ñooy ku ne na ngeen jàll à autre chose noonu dëgg dëgg dafay yomb trop yow papa ñu jël sama tur bi wile pànd ko ci dëkk bi jaxatuma dara ba pare nga naan ñu jàll ci leneen ankay day yomb du xool naa damay dem porte plainte loolu jot sax wax ndax def naa ko ba pare képp ku takk ci li nii di nga paye les pots <laughs> yow doo tal sa bopp nga tal sa ëmb bi ak sa doom bii loolu moo gën ci yow di ko nga nar topp naaj bi wërë a wër ba sa tànk dank fuutu bi tay daa bëri Dakar de rek leen doom laajuma la ndax ñàkk jom ak hmm. ñàkk classe weesu li ngay def nii tey du xam nga ma semaine du jour yow wan naa la ko bu baax hmm. xam laa bëgg nga xam ko très sa conseil yi tu peux le garder pour eh doy na yéen lan kon yéen ñaan ñi xamoon ne buy saane bu dee nga ngeen xam man du ma ñëw ma nekkuma gum jëm di waxtaan yow si njëkk ak teraanga kenn ku nekk si yéen ñaan di ma jaay reewande kii di wiñaar kanam kii di biñ kanam nga ne mel ñu rate xam nga lan la man nekk ma fi góor gu kilifa goo xam damay wax kenn teg baat bëgg lu ngeen fi indi bëgg indi sama kër du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg ay jigéen ngeen da ngeen war a doon ay royukaay fii si kër gi nit sax war na xuloo si àll bi ñëw daal di yow xool si yéen dem jubóog ay waa këram ngeen doon ay référence xam nga lan laa bëgg seen ñu fi ñàkk fayda yi nekkuma si ngeen bàyyi seen ñu fi ñàkk fayda yi ngeen di def yow surtout bi yow du buggul loo koy wax ba ko bul ko ko waxati comme moom ñàkk na jom dugg si àll ba ëmb si àll bi nag seen ëmbam leen nag laa lay wax nag te mooy sama kàddu gu mujj mooy sama kàddu gu njëkk xaw ma kam moo la ëmbal mais na nga ko jëli ji nga indil ma ko fii ne ma bàyyi kii mooy sama bàyyi doom. loolu jara wax.